Assalamualaikum. gay ni wat nañu lan benen yon di len dalal ak jaamu ci sen sport ans dañu koy dore ak match yi nga xam mo jotta xew ci ngonu tay ji bala ñuy ñew ci walum transfert na mbirum eliman jay ki nga xamanteni nak moy Portugal ak Brésil ñom dañu daldi di gannaaw bi ñu amé ndam tay ji Brésil football ci ngon si dal di door di swiss ben bal ci dara ben bit bo Carlos Enrique Casimiro. moko daldi duggal ci 83e minute lool nak nek ndam lu am solo ndax mo len may ñu qualifier bit bobu nak ki nga moy Rodrigo moko daldi pass kon Rodrigo asis assist Casemiro mu di ubi caaxi jogante gu jefe won sax ndax bu ñuy ki di Neymar xam ngeen ne bokkuloon ci match bi loolu nak bëri coppite yu yum indi tay ki line up bi nga ne coach bi dal dina tek teg gis nañu changement yi mu def daal ci second mi bi jur na njëriñ ba Brésil daal di mujjee am ndam comme ni leen ko waxee fi mu ne nii bu ñuy xool ñoom ñoo jiitu ci seen classement ci groupe boobu nga xam ne ñoom la ñu am nañu 6 points qualifié nañu li kay premier wala deuxième place bi Switzerland moo nek ci ñaareelu place bi muy Suisse ñetti poñ la am que dégg nga Cameroun ak Serbie ku nekk ci qualifié qualifié waaye bu dee fexe nañu ba dóor seen jogante yu mujj itam seconde place képp lañ mën a jël voilà Suisse moom da bu fekkante ne am na ndam ci kaw Serbie xañ na mu booxanteeg Brésil ca kaw ñii di Brésil Cameroun dóor leen ñu fàttali leen Cameroun Brésil lay am da ci match bu mujj bi te dóor ko bu bëggee qualifié loolu nag mooy li nga xam ne moo xew ci groupe bi ñett ñi ñooy xëccoo li ci des mais Brésil moom jot na tikem ba noppi dal di dóor ñaari waaye jotu ko bal bi wàcc ci dégg ci camp dal di dugg mu amaat penalty dal di koy teg dugal ko kon Bruno Fernandes mii de ko ñu ràññeele jamono bi ci coupe du monde bi ndax bu ngeen fàttale ko match bii weesu contre Ghana ñaari passe décisif la defoon maanaam dafa amoon ñaari bal yoo xam ne joxe na ko gars dugal ko tey ji moom ci boppam mu dal daal di dugal ñaari bal loolu nag am na solo loolu moo leen may kon jamono bi ñu am 6 points daal di jiitu ci seen groupe voilà ñoom waa Portugal qualifié nañu Ghana moo nekk ci ñaareelu place bi am 3 points ndax South Korea muy Corée du Sud ak Uruguay ñoom ñaar ñëpp ku ne kenn ci ñoom togagul de mais nag ñoom victoire rek mooy loo xamante ni fi mu ne mën na leen ci génne Ghana moom match bu ko amee sax mën na dundee yaakaar ngir qualifié xeex place bu mujj ba ci journée bu mujj bi kon gars li nga xamante ne mooy deuxième journée bi jeex na gannaaw bi ñu joué deuxième journée bi ba mu jeex tàkk ñetti équipe képp ñoo qualifié gum bokk na ci France France qualifié na waaye Brésil ak Portugal mooy ñetti équipe yoo xam ne dèjà ñoom qualifié nañu bu ñu xoolee nag ñaari équipe képp ñoo toogagum mooy ki nga xamante ne mooy Canada ak Qatar ñaari équipe yi ñoo toog ci li nga xamante ni mooy coupe du monde bi même bu ñu gagné woon match yi mujj sax mënuñoo qualifié Canada euh, ak Qatar toog nañu yeneen yi ci équipe yi ci des yëpp ku ci nekk yaa ngi xeex ci journée bu mujj bi nga xam ne war na door suba voilà Sénégal na comme ni la ko waxee bu 15 jotee kon jongante yi fi ne nii dootul nekkati ñeenti waxtu ci béy bi maanaam di xëy di football ba ngoon jeex na dañuy football ñetti waxtu la ñuy maanaam 15 ñaari match su ñooy dawandoo bu demee ba 19 ñaari match say dawandoo te loolu suba lay tàmbali gannaaw loolu nag gis nañu ne li nga xamante ni moo xew ci dugalkat yi eh, Ener bi nga xam ne moo war a janoog Sénégal suba moo nekk meilleur buteur Bukayo Saka ku nekk ci ñoom dal dinay dugal ñaari bal kon ñii ñoo nekk gum li nga xamante ne mooy top 5 meilleurs buteurs yi eh, ci li nga xamante ne mooy eh, coupe du monde bi ñu nekk gannaaw loolu dañuy ñëw ci leneen Juventus ñoom nag fi mu dañu gis ne kat ñi nga xam ne ñoo ko jiite woon ña ko doon jiite di liggéey ñoom ñëpp dal dinañ tekki seen ndomba tànkam ki nga xam ne mooy Pavel Nedved xam ngeen ko ancien Juventus la voilà moom itam dal dina tekki ndomba tànkam ñoom ñëpp resign nañu jógee ca dégg bopp nguur googu ñu nekkoon gannaaw bi nga xamante kat gis nañu Juventus ay jamono ci gannaaw ñu ngi doon dund jafe faju bu yàggul dara ñu dal soppi yëfi di dóor dóor yu métti gaay ba dégg maam jubali li nga xamante ne mooy bopp classement ba ñu ngi koy wutali waaye daal tey ji kayiti xibaar biral nañu ne direction bi moom ñëpp tekki nañu seen domba tànk bu ñu sukkas ci kayiti xibaar yi ki nga xam ne nag mooy Elimane Ndiaye Elimane Ndiaye bi nga xam ne mu ngi ak équipe nationale bi jamono bi ca Qatar di waajal li nga xamante ne mooy dégg jongati googu war dox seen ñoom waa ngam Forest xam nañu bu baax Iliman Ndiaye te bëggoon nañu ko ci transfert yi weesu kayit xibaar bi nañu lu ne mel nañu bëggoon nañu ko de ndax Steve Cooper Steve Cooper tagat tàggat ngam Forest mom dajé won ak Iliman Ndiaye ci li nga xam ne play off yi voilà play off yi nga xam ne moo leen tax monté bi dajé won nañu ak Sheffield United ci jongante yoy nga xamanteni amalon nañ ko muy aller ak retour Iliman Ndiaye defon lu am solo ci jongante yoy légui nak ñu gis bi transfert yi mom dafa ne woon gars nañ ko jënd way gis nañu mu jur won jappandi légui nak ñoom bëgg nañu ñëwaat nga ma talal seen loxo ngir dal di koy signer ci janvier bi lé ñu fatte fàttali Iliman Ndiaye ndorteeli bu am solo la am ak ñi nga xamante ñoo di Sheffield United koo xamante ni ki daaw def na li nga xamante mooy fin saison bu baax ba tax dégg maam Nottingham mooy English dëggal seen bopp bu baax a baax ci ne dañoo bëgg xale bii di Iliman Ndiaye toll ci 22 ans ci janvier bi la comme ni ko kayiti xibaar birale ñu fàttali leen ne Nottingham Forest mooy équipe bu Cheikhou Kouyaté ak ki nga xam ne mooy Moussa jaxate mi nga xam ne dafa amoon blessure te ñuy séentu ne bu yëfi reprendre moom dina dellusiwaat ci place kon bu fekkente ne Iliman Ndiaye fexe nañu ba jot ci moom bu demee ay mbokkam lay fekki foofule ca Nottingham Forest gannaaw loolu ki nga xamante ni Karim Benzema moom nag nee nañu dee tane na Karim Benzema tane na dinañu dina amba tàmbale li nga xam ne mooy tàggatu yi ci alxames ji kayit xibaar sax ñu ngi biral ne mën na delluwaat Qatar de ci coupe du monde ba ndax kat moom turam moo ngi fa ba tey indi wu ñoon kenn ku ko remplacer te dégg nga maam li nga xam ne mooy règlement FIFA bi d' accord na kii di Karim Benzema dal di delluwaat ci li nga xamante ne mooy groupe boobu comme remplacer wuñu ko woon moom ba léegi nii bu tàggatoo ba yaramam pare te fekk France togul, mën na dem fekki waay gaay ci Qatar ànd ak ñoom ci li nga xamante mooy coupe du monde bi mën na sax loolu nag nekk loo xam ne xëy na bariwul lu ñu koy gis waaye lu am la lu mën a nekk la te benn siment ne nañu tànn ba tàmbali na li nga ne mooy tàggat wala dana ko tàmbali bokk ci alxames ji foofu la ca Madrid bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi voilà loolu lañ gënoon mën a jàpp kon ci tënkum xibaar continuer leen di suivre Sen Sport 221 The Best Sport News Channel